man fekkee naa yàlla war wërsëgalee na ma fa fekkee ay jotaay yu bari ci Dakar yoo xam ne président Macky Sall jël na fa ay matukaay ne nañ tabax ay marché ci Kaolack ba fii may wax ak yow wax naa yaakaar naa barki démb wala benn fan bala ñuy julli ma ne am na ay projet yoo xam ne président Macky Sall mi ngi koy wax pour Kaolack fan yu néew dinañ ci wax far yàlla dogal lii ñu profité ci loolu ci wax ne président Macky Sall dogal na ci ak gouvernement am pour ñu commencer marché bu bees tàq ci mois bii ñu jëm fii ci Kaolack mu nekk marché boo xam ne marché régional lay doon loolu Macky Sall décidé na ko pour ñu def ko loolu loolu liñ ciy xaar mooy mboole seen ñi nga xam ne ñu ngi yëngatu ci wàllu commerce fii ci biir dëkk bi am nañ ci sax parce que ku bëgg a defar foo jaar laal ka ngay laal bu gisee ne da nga koo gaañ ma da nga koo yàqal bu yuuxoo ca yow ngay bërëm yéen ma la nga moote ñëpp nga taxaw te boo taxee man naa yàq loo xam ne bu ëllëgee doo ko sax xayma alors vraiment ma bëgg loolu projet la boo xam ne ñun ñëpp nañ ci jàpp même comme laal nit ñi it ay xool lañ yor duñ fekk njaboot gu ñëw taxaw rek ubbi magasin wala yor place am di jaay nga ñëw rek faagaagal ko ne damay tabax loolu xel xalaatu ko waaye ñu xool yan anam lañuy teg yoo xam ne kenn du loru danañ defar ci ñuy jaay duñ loru